la Murit Media Group vous présente première édition Bawal Event waaw waaw njukkal doomi Bawal la ñu wax kañ la le 11 janvier 2020 nee na la at bu bees xew-xew bu bees Bawal Event la ñu wax ana fu mu koy defee restaurant Eldasi nekk foofu ci total kër Xaadim ma ni ko sëñ Mbàkke lii lu tax nga def ko mu ni ma kasi dama bëgg ñu ràññee doomi Bawal dama bëgg ñu xàmmee doomi Bawal seenuk am jom ak seenuk nangoo liggéey ma ni ko a ah, sëriñ loolu dëgg la ma ni ko kon ana ñan nga ci ràññee mu ni ma jàppal bokk na ci honorable député Moustapha intégration africaine 2019 bokk na ci Serigne Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma ministre conseiller Bawol leadership 2019 bokk na ci honorable député Cheikh Abdou Bara Doly Mbacké Bawol parlementaire 2019 bokk na ci Soxna Ami Mbacké révélation 2019 ak kii di Modou Diakhaté Bawol jeune entrepreneur 2019 Khadim Tall PDS jeune espoir 2019 ak Soxna Astou Mbacké Gaye Bawol femme entrepreneur 2019 Serigne Sidi Mbacké Bawol ACTT conseil aux collectivités territoriales ak kii di docteur Sylla Bawol social 2019 mbokki Touba mbokki Mbàkke mbokki Njaareem rawatina mbokki Sénégal événement ba ngi noonu le 11 lay doon foofu si restaurant Eldassi nekk fii si Touba à partir de 18h maanaam juróom benn waxtu si ngoon ñu si woo ñëpp nag bàyyiwuñ kenn rawatina ngay doomi Bawol ñuy njukkal doomi wal kon kenn waru la faa njëkk rawatina ñiy yëngu si wàllu presse ñëpp ñu ngi leen siy woo Murid Media Group nee naa la at mu bees ak bu bees bu ko kenn lu mi doon muy Bawol Events kon ñu ngi siiwoo ñëpp bàyyiwuñ kenn le 11 janvier lay doon à partir de 18h maanaam juróom benn waxtu si ngoon foofu si restaurant El Dassi at mu bees événement bu bees ak Serigne Mbacké Dieng kenn du ma kenn du ma. ki leen kenn amul.